jërë ngeen jëf mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax ñu ñëw ak yéen eh, ci xibaaru tàggat yaram yi fas yéene waxtaanee Sadio Mané bi nga xamante ne eh, ma ngay waaj di dellu fële ca Europe waxtaanee Michael Ngor Faye bi nga xamante ne y a beaucoup de clubs européens yu koy convoitiser mais laata ñuy ñëw yi ñëw ci actualité yi eh, dañu wax ngeen wii di abonné te di activer cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal ngeen bokk ca ñu koy njëkk a gis surtout ngeen di partager di wax seen xalaat ci commentaire yi suñu international sénégalais boobu di. Sadio Mané ma nga ci Al Nassr diamoni on di def saison bu baax hein, franchement rien à dire ci saison malgré que les billes ñu ko doon xaar dugalu ko mais à chaque match da nga gis euh, fay wane bopam capacité bi mu am euh, à chaque fois di def effort défensif ak offensif loolu rek dafa doy wax ma la euh, ak yeneen yi mi liggéeyal équipe bobu di Al Nassr loolu nag waral yenn club yi nekk fële ci Europe hein, ñu ngi koy bàyyee xel bëgg ko jënd sérieusement Galatasaray d'après média turquie donc Galatasaray mi ngi envisager sérieusement ngir recruter l'international sénégalais Sadio Mané ngir lan ngir mu jàppale leen ci seen euh, yeneen match yu jëm parce que gis nañ que ne ñuy xëccoo euh, championnat bi jël deuxième et tout Galatasaray daal mi ngi bàyyi xel Sadio Mané est-ce que Sadio Mané dina dem Europe ou pas loolu xamuñ ci dara mais ñu ngi leen di xaar ci commentaire ngeen wax ñu seen xalaat ak seen gis-gis le crack Barcelone, le crack de la Masia, l'international, le jeune espoir sénégalais, Mikhail Ngourfaï Diamoni. Il y a beaucoup de clubs européens intéressés. Dortmund, Arsenal, Lens, et une équipe donc nous ngi koy bàyyi xel donc euh, Barça nous moom mooy opposé wu ngir bañ ko parce que dafa compter moom ci à l'avenir donc nous avons mais ah, yeneen club sax ñu ko doon bëgg ci mercato bi passé Barça opposé woon mais instant bi beaucoup de club ñu ngi intéressé wu ci moom loolu dina am am déet xamuñu mais dañ leen toppal dossier bi Lamine Yamal waa Barça ñi ngi waaj a prolongé contrat ba 2030 clause libératoire bi dina nar a nekk 1 milliard d' te dañoo nar a doubler salaire salaire am donc 3 millions d'euros lay fayeeku nar nañ koo fay 6 millions d'euros moom le crack Barcelone yi Lamine Yamal Kylian Mbappé a demandé au Real de recruter son frère Ethan Mbappé donc te dirigeants yi Real yi jox nañ ko accord ba pare donc kon mën nañu yaakaar kan ñaari frères yi dinañ àndandoo dem fële ca Real de Madrid Ethan Mbappé et Kylian Mbappé donc li lañu ñu leen di leen wax wéy di like di commenter jaa ngeen jëf.